foofee lañ doon football ca ñax mu tooy ma journaliste yi nag ñoom ñëpp dañ ko alawtiku gardien Betis Séville bi mu yaakaar ni gars yi dañ naan ko li nga jàpp tey ci ay bal bari na lool gars yi woy fa loolee lépp di ko laaj ndax kii di Bellingham mooy meilleur joueur du monde mu tontu leen tontu bu leer nañ bu ñu war a mën a nettali seen i mbokk fële ci Espagne Bellingham guddi yu toll mooy footballkat bi nga xam ni moo gën a xarañ ci àdduna wala ngal kàpp ci guddi yi moom gardien Betis bi loolee la confirmé taskatu xibaar yi ña ngi cay jaaba gonde jaaba jonge di ko alaw te ku yéen it am ngeen ci tontu ci li nga xam ne mooy commentaire yi ginnaaw bu ngeen defee seen i abonnement aimé suñu vidéo ndax bu diinu toll mooy footballkat bi dàq football ci àdduna wala ngal kàpp maa ngi leen xaar ci rek moo ci mu gàtt tey tegu ci teg ginnaaw loolee tamit dañuy yaatal ci ki nga xam ne mooy Lionel André Messi nag fi mu toll nii mi ngi ci am xalaat boo xam ni daanaka fi mu toll nii boo amul sens xalaatam mooy xalaat bu soppeeku ci la nekke yéen a ngi fàttali ko coupe du monde bi bu mu jeexee Messi xam le ni bii mooy coupe du monde bu mucc fële ca Qatar waaye nag fi mu toll nii nag wax dëgg yàlla ni affaire yi évolué ak Messi mi nga xam ne équipe nationale Argentine nanguwuñu ko may naada moom moomee fi mu toll nii mi ngi xalaataat ci footballaat beneen coupe du monde beneen coupe du monde sax Messi da koy football ndax daanaka màgget na waaye teewul nag tànk yi. ñaari at ak ñetti at yi nga xam ni ñoo des ci li nga xam ne mooy coupe du monde bi loolee tax koo bàyyi football loolee ko koo bàyyi équipe nationale xam naa dana gungewaat pour jëli ñaareelu toroppam donte lim doon wut ci football ci àdduna wala ngal kàpp am na ko àdduna wala ngal kàpp bàyyi leen site bii di Aladji Malick TV def seen i abonnement aimé suñuy vidéo loolee dana tax lépp lu ñu dugal ngeen mën koo coppati